al guddi. léegi xam nga waxtaan bi lan moo neex parce que yow. xoolal danga ma dul déglu. mais bu ñu déglu tey may ma tuuti rek ma ñëw. man ñeneen ñi xaw ma de waaye yow mi yow yàgg nga ci tiktok bi de yow ba de sax bu kee danga fa daan yéeg ngay intervenir yow dara ump la yow. moom ci tiktok bi mais dama ne la xoolal. xaaral ak may ma ma ñëw may may ma chéri temps ya may live yow sama élément nga yàgg ngaa yegg man damaa yàgg ci tiktok bi te man damay doxantu. yow boo nee yow kaa yi am ci tiktok bi fi yëgoo ko yow moom dina ma jaaxal yow sa bos ña ñeneen ñi moom wóoruma yow ba da daraan rëkk live nga yéeg ca kaw panel ba man mii ci lu ma mës a siib da yow danga doon ñëw yéeg yow soko ñoom taay ñi laay fal joor yooyu yëpp yow am na benn jour yéeg nga sax yow ngay défendre joor benn jour. Ah, man si défendre joor nag laa dëkk. waaw xam ngay waa léegi yow lan moo taxoon kon yow nga doon défendre joor parce que temps yooyu la xel mu sell ak Awoush Kité ak Choco doon laay fal joor ñuy wane fétisu joor bi kon yow boo nee xamoo xel mu sell wala xamoo ni problème bi demee dina ma jaaxal ñeneen ñi moom mën naa leen a gëm mais yow mii borom tay baas orange vert bi yow man ak yow dañoo yàgg yow da nga doon ñëw sama live tout le temps di participer yàgg na waaw kay moo tax nag yooyu moom nañ waxante dëgg rek. te yàlla tax mais yow moom li xew ci tiktok bi moom dara ump la ci yow xam nga ne xel mu sell ak aus bi ñuy laay fal joor fii loolu loolu moom moom moom moom xoolal ump ump la xanaa kay dem nga ba benn instant peut-être xel mu sell li muy def intéressé la la paaseem loolu yow intéressé taw la mais yow. moom yow naka laay bokkee sitim xel moom xoolal na waa oui moom sax na wàcc mu dindi photo jàmm parce que borom nee nga dindi photo bi ñu koy réclamer ci suuf dindi photo bi nga yéegaat. dem dindi photo ah, jàmbur rax yow laay ba da nga doon yéeg ca kaw ngay wax yow nga doon yéeg ca kaw di défendre yow rax doo ma bàyyi nata saami doo ma bàyyi nata ah, waa léegi ma may ma tuuti non moom bu nee moom xamul xel mu sell man damay choqué wu parce que kii da doon défendre joor kii bu soko fayaan da daan taal da doon live bu ñu dem bu joor taale moo fay jiitu waa léegi kon moom lan moo taxoon kon moom mu doon de de défendre joor xanaa kon moom neewul ne seetaanu xel mu sell ak awuskite ak soko a ah, ndax temps boobu la xel mu sell di fal joor daal di jël ay photo joor di ko taf kii bada bu taalee sax ci bada la daan nekk kii benn kaa ump ko kaa bu ma sa xew di doon siif yéeg wax ay bal moo tax man tey bu toogee ne xamul xel mu sell ñee moom mën naa comprendre parce que ñee man xaw ma leen c' est la première fois man ma gis leen dégg leen mais moom mii. waaw asalaamaaleykum. Ah, borom tay baas bu orange vert bi. non non dama ko nangu maa yàgg nañ man maa la wax lii ñoom ñaar yàgg nañ ci tiktok bi. duñ ñu bàyyi. waaleykum salaam madame Sarr. waaw roqay rek la bëggoon a waxal. ndax euh, maa ngi koy nuyu. waaw euh, maa ngi lay nuyu madame Sarr yaa ngi ci jàmm. maa ngi waaw maa ngi si jàmm dama la doon nuyu rek. nga xamne sa soppé la sa soppé la yalla sedd waaw ngay doomu pikine nak may doomu té te yo waxé da fay am luy dugg ci man yalla sedd na ko la sopp te yalla rek tax donc lo rek moma ma tax a ça fait l'occasion tay ma demander ki ñu yégal ma ma ngi lay top nak en tant que yaay ma ngi lay top si yu bari ak sa wax té waaw saaga yi rek moo may xaw a déranger yenn say wante ku la sopp la bilaay <laughs> bàyyi naa saaga yi gisoo léegi léegi banaa ko lay nuyu lu di nuyu say njaboot mm, yàlla na la yàlla mm. dimbali te may la xolu muñ mhm. loolu rek la bu ñu waxee sa yaay ba jëlal benn baat boo xam ne yàlla moo ko bindee noonu tey allah kulli àll lii daf ko naroon na dal bala moo dem ndax mm. sama doom barki dem ba njaay la gaañu te tamit ba muy dem si demin boobu la demee donc wax ji woon baaxul oh, euh, voilà loolu rek laa la bëggoon wax jërëjëf merci maman kontaan naa merci beaucoup mm. merci baal leen ma de yéen damaa jàppoon moo tax maa ko mujjee <laughs> man xamoo biñ may woo dégg naa ñu naan Natacha mais xaw ma ne borom profilu tay baas bi la ma ko gisee mu yéeg sama live sama dama choqué wu ma ne ah kon kii la kon kii léegi kon dafa bokk ci groupe bi parce que kii bi ma koy xam ci ay live ba dalaa ko doon xamee des fois bu ma yéeg bu su ma siifee live civisme day yéeg su ma waxee ci maanaam affaire sëy surtout nag moom euh, côté côté préféré mooy live sëy yi ak góor ñi moom loolu moom intérêt intéressé woon na ko muy indiwaan yooyu ay tebu sëy yeeg yooyu da ci wax ay gol may ko loolu may ko a kon kii kay tim la war a bokk maman naa suñu ma ma nga xaw ma ngi jéggul na xale yi damaa xaw a de ñii ñoo ma yàq princesse Ndiaye moo ma yàq siifal xel ko ma lay dégg ma ah salaam salaam ni ngeen def yéen a ngi ci jàmm ñu ngi fi moom c'est may yéeg ci live mais affaire wu xel mi seen dama ko doon topp de très près parce que dañ doon assister ah. ci live bi ok tooroo ak ami ñoom ñett ñoo doon modérateur yi ak ñeneen ak ñeneen da nga daan dugg ci live bi di yow boo dégloo di nga xam ne déjà moom il n'est pas lisude mhm. moom mu ngi topp dossier bi moom xelam bi ànd ak xelam bi te chaque fois mu ngi naan am na lu ma xam am na lu may wax boo bëgg na nit ñi di continuer di wave di Orange Money da ngay dugg ci live bi ñoom ami noonu bëgg leen orienter sujet bi wax leen est-ce que doo leen wax lu plus important mais ñoom ñooñ seen biir ñoo lay saaga dañ lay saaga ba pare dañuy jël teg sujet jéena ba fële yow la ñuy jël man il m'a bloqué rotuma daf ma bloqué ñoom ñëpp ma bloqué jël ma ne ma waaw kii est-ce que sax moom a raykat bi ànduñu est-ce que bokkuñu groupe est-ce kii ndekete boobu ñu ngi jox sujet boo xam ne ñii bëgg ko nit ñi di continuer di wéef di orange ma ne yor seen kaye nag di bind gis nga xel bu selo loo envoyé xam na ko même parfois kenn ne ko naa 1000 francs mu ne 1000 francs ban jour nga ko yónnee dañuy bind lépp xam nañ ko moo tax ñoom ñëpp ànd lu tey la ñuy toog affaire bi jël benn envergure ñu bañ ku leen ci dugal ñu toog naa bokk ci non non ñoom ñëpp ànd parce que ñoom ñooñu nan ngay nekkee admin admin xaw ma lan modérateur koo xam ne xamoo ko ci aadama ci awa mosoo koo dégg yow déjà boo nekkee mi dañuy fonne yéen ñaa am ngeen benn te boo xam ne xam nga ko xam goo xam ne nit ñi war nañ koo wóolu envoyé ko xaalis yow loolu yëpp tuyee témoin tey nga bëgg bëgg cee génn mënatul nekk gis nga ñu envoyé man moom damaa envoyé wul sama xaalis wax dëgg fa neex yàlla parce que dafa lu lucidul ba pare il m'inspire pas confiance sama xaalis duma ko envoyé ci loolu bu ma ko yéenee famille jeena ba laa jox ba pare bëgg jaxasee jaxase famille jeena ba bi jaxase frère am bu nekk Maroc jaxase beau frère kii ancien jëkkëru jeena ba bi moom daal jaxase na famille bi dem nañ ci avocat wàcc nañu ñi ngi naan ko waa turu avocat bi jox ñu ko ñu xam mu ne non mënuma leen naa jox turu avocat bi parce que bu ma leen ko joxee mën ngeen ko suufu lu ne wax na ko lu ne wax na ko mais nag nit ñi nag ñoo tooñ seen bopp de ndax ku mel ni xel bu sell boo ko envoyé sa xaalis ak man lu ma sensibiliser sensibiliser ci sujet bi xalaatu ba ko yónnee sama xaalis donc modérateur yi nañ waxaat ci wax ci ñoom ñëpp ci nañu bokk ndax association de malfaiteurs la nañu wax wax ci ñoom ñëpp a yam merci Ndeye Daba ci loo ne na yenda def yéen jam wa ci jàmm. waa. Ndeye Daba do. la Codou. ça va waa Codou. eh sama rak jaa non. Wah, waa do. ci loo ne. maa ngi nii rek ça va. dégg naa ci ani Penda Mu ngi ci jàmm Penda ngi fi. ça va. ça va xoolal kii wàcc nii nata saa defe naa rek la leen. danaa nekk sa fa jour. des Ami Ami moo daan wër ci commentaire di la bindal naan la rok su am nga jot. moo tay bi nga commencé di live ma lay bind ne la bu ko débloqué. yow code doo nit moo bindoon réglé leen. loolu la bind loolu la ñuy dama leen a yàgg suivre du tay <laughs> nag topp ci commentaire di la xas. ami taalibe ma moo bi nga commencé ma ne la bu ko dindi. gis nga xel mu sell mii bul yóbbu ndayam benn police pikin nga dëkk. boole ko waa pàq bàyyi Moussa ñafal la ndayam ba ñu fa benn place. noonu la tuddoon. merci beaucoup Queen. loolu yàgg na jërëjëf Queen xam nga. ka ca des mooy bind naa ni rox nag am nga jot rox am nga jot mooy ami taalibe Seex mii tay hmm. li nga bëggoon a xam tu xam nga lépp. Ah. seen papa ji jiite woon leen ñafal ndayam ba muy xool benn place boo ko yóbbu benn police boole ko waa Pàq Baye Moussa ñu hmm. ñafal la ndayam ay fas ba ñu sonn. Ah, léegi rek la leen xaraam rek. xel mu sell bi lalu xaraam bi noonu la tuddoon waa léegi rek la leen lan la mës a wax lan la mës a wax lu ñaaw ak lan la mës a def lu ñaaw dama ne rek la leen nga tuddoon dama ne rek la leen waa léegi ba ma ko tuddee loolu laa wax waa léegi ba ma ko tuddee man waa déglu rek ba ma ko tuddee moom bi muy nekk rek la leen moom moom siif la bëggoon moom moom sama xel kay est-ce que est-ce que dégg nga ma wax la lu ñaaw wala ma def lu ñaaw déedéet yow moom da nga doon siif moom yow moom moom laa tuddoon may dama ne la est-ce que mës na ma wax lu ñaaw wala ma def lu ñaaw dégg ma ne la dafa am loo fi wax dama ñaa rek la voilà waa mais commentaire di wax naan rox su am nga jot loolu laa la wax. ah waaw loolu fekkewu ma ko ma chérie xam nga lan laa fekkee. lii la voilà gis nga yow ni nga bokkee si team rox noonu laa bokkee si team rox. waaw man kii day sama mat. loolu laa bëgg nga xam ko rox su moom la gën a xam. team rek boolewuñu rox su mi ndey dama sama mag la. waaw ba nga ne ndey daba laa xam ne xam nga ko waaye déglu ma wax la rek dañuy dégloonte rek ma dañu dégloonte rek. wala daa am leneen loolu maa ngi koy dindi maa ngi koy dindi dafa dañu waaye na dañu njëkk ak tànga ku mel ni bëggoo yow xamoo yeelaa wala nga bëgg ma dugg si biir sër day dama faal nga may wax ay tim man avant may bokk ci timam laa ko rek tam laa njëkk a doon dafa changé day door a changé bàyyi leen jàmbur bi bàyyi leen jàmbur bi ku leen dul tooñ di ngeen bu leen ko tooñ tey da ngeen a ñëw weeru tey di ngeen weeru lépp waaye la lu waaye xel lañ ko toj kattu ndayam fële ci coom boobu mu yor katt leen ndayam fële oh bu xew mi nee ba nga fàttali te yow tey dama sonn ci lii waay hypocrite lañ ah. Ah. waa ko nga kenn ki nga ne lan la doon bind nee na moom ah, kooku. danaa leen am nga jot maa ko liir. ba ngay commencé di live laa la topp naan la bu ko dindi bu ko débloqué ba damaa ragal yow waaye kii wér na. ok eh man du de rek leen de mu jën. waa te ba pare kaa nag ma expliqué la te ba pare moom de. moom moo ma woo de di ma reproché naan ma waa waxoon nañu ko waa léegi kon man lii nii ma def kon kay laa wax dam damaa fayu kon ah, parce que moom te ba pare moom ci boppam moom moo ma woo chéri boo duggee da ngay may ñu daaneel parce que moom moom a woo di ma reproché de moom moom de naan <laughs> xoolal ma di ko waatal naan ko barki yonent bi bu fekkee damaa woo ñoom vraiment. wala loo xam ne dañ ko programme bar bi yow miy bind loolu man dofuma man damaa jàng ba ni nii man day daba faal mi xam na li may wax yow mi yaay seytaane bi kii li ma wax loolu la bind. ami li ma wax loolu la bind du ko weddi dafa ne carrément rox am. ba jot loolu la ci kër gi la sama rakk la. waaw code parce que code bu waxee profilu réglé leen. parce que réglé leen noonu la tuddoon avant. photo bi moom changé wu ko. moto bi changé wu ko mais réglé leen la tuddoon. léegi nag man taalibe sëñ Babacar si moom moo ma doon woo woo na ma ne ma waa euh, affaire yooyu moom moo ma woo ne ma waa lii. parce que dafa mel ni kon woo nañ uh-huh. depuis ci dix huit heures ba tey genre truc yooyu man tamit ma di ko waatal ma di ko mais tamit ngay waatal nit muy mel ni yow comme ya ma ne ko à la fin tamit doo yàlla doo yeneen. waay waaye mais kiwin yow xamoo li may wax nga naan du dëgg. da fekk njëkkate moom tamit wax na ma lii moom du ko weddi moom si boppam bi mu yéegee ñeneen la réglé leen la tuddoon. yaa ngi dégg man day daba faal mii du ma ko yàq wala ma nekk ci commentaire naan ko yi amul loolu kii ñun ñoo nekk Pikine depuis gone ba tey. ox mi moo ñu yar man ak nday aram mii di fi yéeg muy daay moon mm-hmm. eh, man li may wax ragalu ma ko de man duma ma tàppet de rek leen de <laughs> mu jéen yéen ngeen a dof kii lool la bindal rox si ngeen di wax ni déedéet maa ko gis ci commentaire yi ah dëgg la billaay soo ko waxee dëgg la waaw kii bar bi mii bëgg a weddi li may wax ah kan kuwin yéen da a dof tamit sama sama doom la code na lépp rafet c'est la xel mu seetlu bi muy live euh, fële dama fa nekk xanaa xamoo kiwin nii code xanaa xamoo kiwin nii mm-hmm. même kiwin sax dafa bokk moom tam ci ci yi mm-hmm. Mm-hmm. bokk ci victime yi te kiwin moom moo daan dagg laay si di ko dugalal ah. parce que jay ba waa kiwin kiwin victime la kiwin da doon dagg doon ko dugalal mais benn benn instant kiwin sax amoon na numéro parce que da ko doon wax ne ko. man kiwin dama koy mais foog naa am na tamit lu mu def kiwin man kiwin bind dama ko mais dama ko dama fàtte naa sa lim ma bind. même kiwin moom victime la. jot na wàllam si affaire yi ndax kiwin booy xool live bi moom moo ko doon dagg sax. moo ko daan dagg dama koy gis kiwin dama daan dugg paasam dafa gis ay live xel mu sell Bijou Diouf. Mhm. Bijou gis naa la. rox su xàmmee woo Bijou juuf mii butigu Diouf la dëkkoon tali bu mag. tali bu mag bi tigu Diouf ah bon. ci mm-hmm. laaj bi waa Pikine dëkk lay suivre boo defoon deli Pikine kenn du la suivre da ngaa mos a dégg fii euh, Pikine de euh, yéeg fii ci live di la waxal lu ñaaw est-ce que mos naa am. waaw kay kon ñoom ñuy wax ci TikTok bi dañ lay sosal xamuñu la ñun ñii di la xam ñun ñii xam la bu baax sosaluñ la. lu baax nga def Pikine sa yaay ñàkkoon maa sonn kon kaa ñu may eben mu siif eben siif. allo. Oui, allô? Rotimi na leen ci jàmm. Eben ñu ngi nuyu. Rox mooy Nata Sami. bu comme genre moom yëgul woon sa xuloo ak eh, ñi nga xuloo ak yooyu waxul dëgg ñeneen ñi nag moom wóoruma mais Nata Sami bi mu njëkkee wax maa ngi ci suuf naan réglé leen la tuddoon avant. may ma rek. taawu yéen a ngi fàttaliku taawu boos ak ummi ba ba kaa bi gënee yëngu gënee yëngu boobu kaawu madame Sène bi sax ñëwagul jour boobu moom ak je pense ay 10 heures la woon sax man maa ngi wàcc nekk ci tram bi maa ngi takk sama livre di leen déglu moom ak ku tudd Adja National ñoom ñaar ñoo yëgandoo woon ci live bi te dama ko daan gis tamit ci live ay ñoom Bada ak. xel mu seen am na benn jour boo xam ne ñoom ci live bi la nekk man ba 6 heures du matin maa ngi déglu live bi peut nag seen deal éclaté na walla dara laa mu ñëw bëgg cee profito naan xamul woon et tout ça mais bu fekkee dañuy xam yëgul woon loolu waxul dëgg man loolu rek laa amoon ci lu may wax. merci beaucoup. yow te ba pare xoolal xam nga la moo tax ma ne la koddu xam nga fu moom xam nga fan la doon nekk laay fu bada laay fu bada lu ci bëri fa la doon nekk bada da doon yéeg ca kaw di siif même am na euh, sama kaawu ummi ak boos bi am na parti boo xam ne daggoon nañ ko moom mii sax daggoon nañ ko moom lañ daggoon sax muy wax xaw ma nag kan moo ko daggati woon am na koo mës a dagg mu ne ci kaw di njoor lu neex boo si kilo maa ngi ni chéri. maa si jàmm. maa si jàmm déjà. en fait euh, mosuma dugg ci live sax c'est la première fois dama doon déglu rek et tout ça. xam mm-hmm. be di wax noon di naan ay moom xamul kaa bi nu mu demee waxul lu am parce que yàgg naa dugg ci say live. Mm-hmm. ak yeneen live di ci commentaire. baax na. bii nii wala nekku sa live am na live yu bari yoo xamante ne dama koy fekk foofu. kon bu waxee loolu aussi waxul lu am nit amul nit nekk waroo toog fii di wax loo xamante ne amul même buñ lay rey sa waxal lu am dëgg mooy njëkk dëggay mujj mm-hmm. boo toogee fii di naan mosoo xamoo kaa bi nu demee te yow nga xam kaa bi yëpp nu mu demee yàgg dugg ci live yàgg déglu lu ñu ñi di wax ba pare di ci commentaire teg si nga toog fii di ay yow yëgoo affaire bi nu demee waxoo lu am en fait ba pare bokk ci mrox waa ba pare dinaan hmm? man fulaani li moo nekk affaire de hypocrite hypocrisie lañ ko bëgg a jouer hmm? nit ki nan ngay naanee yow yow lay suivre nga dugg ci live ba leen ngay gis nit ñi di commentaire ci kooku en fait défendre ko soo mu ni bu munul nga bàyyi kon li ngay woote nekkul ci yow su fekkee yow nit ki de moom nga àndal li ngay woote na fekk mu dëggu ci yow mais bañ a jaay affaire hypocrisie loolu laa mënut a supporter depuis sànq ba tey moom laa bëggoon waxal sax mais dafa fekk mu wàcc bu yéegoon dina dégg lu ma koy wax l' l'essentiel yow li nga nekk ak li nga focus ànd ci ñun ñoo ngi ci yow tawuñu benn yoon luñ nekkee avec toi. merci beaucoup Judy merci waay kontaan naa déjà. yal na la yàlla jàppale. waaw amiin xale yi siyaar naa leen ci loo nekk nag. way mamana jàpp tey romb naa leen sax laay fu suppet lonk na ma ñaari yoon ma ne ko mamana ETPR yi num nu yow bi jaar sama ko num yow BRT BRT Wow. Rox nag live bi amoon na solo xam nga dara danga ciy gañe rek wala nga perte ci wax mm. live bi dafa ubbiwaat xel TikTok bi parce que am na ñu ñu fi nangul ne ay kaw-kaw lañu du ma ko waxee noonu sax wala am na ñu ñu fi nangul ne xamuñu TikTok wala yàgguñu ci TikTok bi dañ fi ñëw rek ñu capté leen ñu jonkoon fenn mais comme ñun ñi nga xam ne dañoo dañoo wër fu bari tey bari nañ tey ji xale yu nekk ci tim bi nit mënu leen a yóbbu ci yu baree bari nak xam nañ TikTok bi ni muy doxee boo doon ka dañuy ñëw jonkoon ci suuf di la seetaan di la déglu ñooñu capté wuñ leen def leen modérateur beneen bi ci des nag mooy kii kii fi wàcc nii xale yi di wax kat euh, dafa nekkoon yàgg na ci tiktok bi man xawma ko xawma ko xawma mhm. sax nu mu daan nu mu daan laay fee mais lenn moom tey rox su wax na ko mu am solo gis nga nit li ngay bëgg ci moom ak li ngay bañ ci moom ñoo tolloo man ku mel ni man ku mel ni man man yàlla moom ma nattu ci ma bëgg nit rox yàlla daf ma nattu xëy na ma bëgg ko ak yeneen xale yi mel ni moom ñu ma bokkal tim bi li mu wax ne man yàlla moo ma tàbbal ci xolu jaam yi loolu loo am la gis nga nit soo koy bëgg doo xam sax lan nga koy bëggee rox su day taal laay fam tëdd ci kaw lalam tegal ñu plafond bi di keke keke laay bi am un cas nit ñëpp di ko seetaan parce que da koo bëgg loolu day am bëgg yàlla moo koy def ci nit li ngay bëggee nit ki sax yow yow bu ñu demee ba ci kanam doo yow doo ko xam yow da ngay laajte kii lan la mais daf lay leer na da koo bëgg yàlla moo koy def ci jaam bi def ko ci ay nit yoo xamante ne dañuy mën a àndee noonu ñuy àndee noonu muy rafet mais jamono jii rox li nëbbu woon ci TikTok bi dafa ne fang te yow fa yoo xaalis pour ñu jëlali la ko yónnee woon ndaw pour ñu seetal la ko yebaloo kenn ne ko kaay taasul ma ko dañuy ñëw ci sa live di ko fa leeral li xew tey jii doy na sëkk li xew tey doy na sëkk te barki démb nag la xewoon bi soo ko yégee sa live la tàmbali waaye tey dafa leer nañ ñi ni mu di bànjul ak Ismaïla te mënoon ngaa def li ñëpp def nag jël xaalis naan waxal leen ma ko lii wala defal leen ma ko lii wala newal leen ma ko lii wala tafal leen ma ko fii wala ubbilal leen ma ko foo compte waaye tey dañoo ñëw yow jox la information bi gratuite man tey loolu laa tiire man ci laay bu tey bi moo koon ma ne mu ci suuf ni man mu jëm déwén toog di dégloo ndax xamoon naa ne ñii ñi ngi génnee li nga xamante ne ni bëggoon nañ mu génn te jot na mu génn te war naa génn te loolu war nañ koo arrêté li loolu li muy firndee nag mooy TikTok bii ak fu mu mënta doon nit munu fee def la umpe loo day feeñ leer naññ ci bëtt nit ñi ñu koy gis nii di la ko tegal te doo ko mën a faj ñi doon fey nit ñu naan leen saaga leen rox ñi doon fey ni ñu naan wax leen dafa sida moom ak ay doomam ñi doon fay nit ñi naan leen taf leen rox tey ñooñu tey ci foofu noonu ca làng ga fa lañ daggee ndax xel mu sell mii doon jox ñii sax ay vidéo ñii wowuñu ko ne ko kaa jox ñu vidéo de mais yàllaa ko nar a weer yàllaa ko nar a natt yàllaa ko nar a feeñal moo tax mu feeñal ko ci digg nit ñi te mënu koo faj tey jii am na ñoo xam ne ñuy wér dëxaro kon nag xalé yi focus leen nërmeelu leen terteri len wax len lu len sax dama japp mais maa ngi di BRT macha allah. maaleykum salaam. nuyu naa leen yéen ñëpp lay nuyu. Golden. Golden ñu ngi lay nuyu. xam nga lan tax ma dugg si live bi man dama laa mës a bëgg xam nga lu may daanal si yow rek su saa yooyu fecci sa fecci dangaa dégg macha allah man may commentaire à chaque fois naan elle sait tellement danser à chaque fois sa vidéo yi dama koy suivre di ko xool di ko xool di ko lu ma metti sax su ma taalee xool di ko xoolaat ngay fecci danga may bégal daal. <laughs> ¿eh? man ne damay jaxase rek maay wàcc merci beaucoup Golden kontaan naa tey de am na benn doomaraam bu ma commentaire ati naan xool ko comme grand frère man leen a ñëwati ma ma dugg siif leen tuuti rek tew après wàcc bàyyi place bi ñeneen barki yonent xanaa xanaa xamoo man de wóor na yàlla temps yee ci mmh. ginnaaw am na koo xam day ñëw naan ma ça va tonton Rox <laughs> ay <laughs> doomaraam lañ lu ne lañ may wax grand frère tonton Rox comme góor keroog am na ko ñëw naan laay pour pourtant Rox dafa rafet de ne ko yàlla baax na. Ah, nag. ma ma siif tuuti rek wax te te bàyyi ñu ne ñu jël place nga xam naa ne bëgg na bëri nañu bëgg yéeg siifal. Euh, kii rox man kii laa kii laa doon bëgg euh, xel mu teel jarul sax ngay yëkkati benn baaraam wala di def lenn jëm ci moom xam nga lu tax parce que boo ko xoolee nga xam ne si une personne qui ne jouit pas qui ne jouit pas de toutes ses facultés li yi dox naan nag ya naaniwul moom nagam yi dañoo dem ba tim abreuvoir ba dugal ci seen tànk raxas seen gannaaw ba pare taxaw di xool lu tax ndox mi tilim moo tax jarta sonn jarta def leen li ko dal nii rek dooy na sëkk dëgg la tiktok bi nit ñi fu nekk la ñuy di ñëw waaye ñi fi nekk ñëpp ay góor lañ tey góor nga toog si sa digg moroomu góor yëpp say mbóot di fee ñëpp di ko gis yaakaar naa ni loolu doy na gàccee àddina bu nekkee nit ku gore bu fekkee nit ku nit ku nit ku muus dëgg la wala nit ku am tuuti luy daw ci yaramam yaakaar naa dina teggi tànk te dina dellu gannaaw bu baax a baax Natacha mi duggoon di wax nit ñi nañ leen ko bàyyee gis nga les rats de navire y les rats de navire y a partout fu nekk bëgg nañ fa dem tooy fa fu nekk bëgg nañ fa dem xam fa fu nekk bëgg nañ fa dem wax fa pour bu ñu toogee ne maa yore lii maa xam lii maa maîtriser lii alors que ce n'est pas du tout le cas gis nga wax ni nit sama nit la yomb na waaye man maay nitu diw mun naa défendre diw mun naa taxawal diw loolu ñi ko mën def bëriwuñu donc ñu bëri dañuy essayer waaye duñ ci mës a àgg ñiy jaruñoo sax sonn wallahi jëruñoo sax sonn ndax gàcce gii rek nga toog ci digg tiktok bi ñëpp di ko fi gis mu leen ne live bi am na ñu koy enregistré bi pare dafay duggaat ci vidéo yi fii ak ñetti fan ku xëy suba teel gis ko gàcce googu rek doy na sëkk ci àddina ma bàyyi ñeneen ñuy yegg. merci waaw man moom li ma siy wax du bëri man damay wax rek ne pour ñuy yegg naan. xaw ma woon ak yëgu ma woon man lépp ci la ma fekk li may yëg ci laay bëriwul de. africain waaye lépp fii la ma fekk. rox mi bu xoolee maag moom ay ami lay. waaye yokk sa volume bi dafa faible. ma dama dama changé sama turu profil TikTok tout ça là mais lépp fii la ma fekk ku yëg fii di wax xàmmee naa la man rox bi may ba ma koy topp jamonoy rox tagal la woon boobu ña nga ca Siriva à l'école ja ba tey donc ku yëg di wax naan loolu yàgg na lu yàgg dëgg la wax wala laa déedéet ñun ñu ngi fi de ci suuf lañ nekk lépp fi lañ fekk dara rëccu ñu nag hmm. dara donc su bu ñu woon turu patriote ba waaw damaa ne xel mu seel dafa désactivé comptam yi na moom rek laay topp nii ñu moytu fen ñu moytu fen yi fii fi nekkoon dafa bëri de hmm? yow bàyyi ma ñu changé seen tur yi ñëw fi naan ay yéeguma tinuma fii. waaw ah, Marouka Roxo may leen ma aussi damay liggéey suba. waa ñëwal. yow kii kii femme bi laa wax femme bi nii pourtant ci ñi doon topp Rox ci la bokk dafa am ñoo xamante ne may leen ma s'il te plaît ma chérie xaaral pare xoolal moom day topp Rox de mais. nit ki doone da ngay topp nit ba pare dem fuñ ko yàqee ndaw si xàmmee naa ko ci panel bi bu baax dafay ñëw mais man fu ngay sama sama nit bu ma fa toog ndaw si mës naa ko gis ci live bada mooy temps yi bada singalee rox si di wax waxu dafam yooyu ma dugg fa di commentaire ñu saa ñu bloqué ma ci saa si xoolal man sama sama nit du ma nangu fenn fuñ koy ñaawale ma fay toog dafiy ñëw nag ci time bi ci la bokk ci ci panel bi dafay yéeg bu baax sax mais sama nit daal dama koy topp moom mu jeex tàkk fu ñu koy waxee lu ñaaw du ma fa dugg loolu daal mooy problème bi mais nañ leen ko jéem a jéggal rek comme que bu ñëw fii di wax ñu jéem a xel mu sell mi kanamam gi gémminam gu yaatu gi mel ne tiwo maa ngi leen bàyyi bu suba. <laughs> merci beaucoup. salaamaaleykum. Mina LP jëlal. nuyu naa leen salaamaaleykum. en fait daa xama na la xaw xawma depuis dafa am ñu ma naan que man lu may dugg si réseau yi bëriwul lu may dugg si TikTok bëriwul du ma publier gisoo sama profil kii moo si nekk euh, logo wu Barça sama photo bi ndekete yàgg na si compte am moom la def profil man xaw ko sama benn mbokk moom ma ko envoyé ne ma am na ku def sa profil dugg si live jàmbur di dénigrer ay nit. nee na yow man kee nga moo tax mu jël photo bi def ko ci. duma ma mannequin wallahi duma ma mannequin photo bi 2 ans ni nii yoruma man sax dama changer won téléphone duma ma mannequin du publier duma publier photo duma publier dara xaw ma dama jég sari ñu euh, capture ko envoyé ma bu fekkee mu ngi si live ne supprimer sama photo bi s'il te plaît. d'accord merci dinañ ko jàllale. Ali merci beaucoup. <laughs> lii du dëgg waaye. <laughs> yàlla baax na si na keneen siif. salaam. maaleykum maa leen di yéen ñi ma fekk yéen ñëpp ci panel bi xaritu maa ngi lay gërëm di la sant ci yéegal bi ma yéegal ci ci sa live avec plaisir pour ma yéeg ci sa te li gën a yokk tax sax ma yéeg ci sa live mi fi nekkoon moo gën a yokk tax ma yéeg ci sa live Roxu na xam ne léegi du n'importe qui ci réew mi. ku baax ci réew mi bëgg nga ko ku baax ci réew mi mi ngi koy topp am na ñoo xamante ni promotion ak buzz la ñuy bëgg ne naa ko cokkaas pour mu génn wax ñu am seen làmp jaare fa tàq man maa ngi nii rox su mii nii wàcc nii léegi-léegi moo gënoon yokk tax ma yéeg pour ma taseeg moom si kaw daf maa bloqué ci malentendu yi mooy jour bi muy euh, papana di wax noonu naan xam naa li xew ci léegi mi li indi conteneur yi te rox su naan ko Ah, moom de xanaa daa am lu papa naa ko li caleçon moom xanaa dañ koo may visa daa war a tukki ji ma bind ci suuf ni ko day fen rek pour moom moom laa wax ni day fen te wóor na Seydina Mohamed yàlla moom laa ci jël seede ak àjjuma bi waxuma ko man ba Bada bloqué na ma ndax jëmmi rox ndax mooy bam ko fii laay fal ma dugg ni ko duulkat nga mu bloqué ma ndax nit ki yow yaay gis nit ki bëggal ko sa bopp ma bëgg ko kon yaakaar naa nit ki nga bëgg doo toog di ko yàq moo tax bi ma ko gisee mu yéeg ma ne xaaral ma demande pour dugg na xam naa ne maag moom mal entendu moo tax mu bloqué ma te fekk na yàlla xam na ne wallahi lazim waxuma ak moom moom na xam ni genre doomaraam yi boroom kanam gu yaatu gi bu mu génn sax di tontanteeg imbécile yi bës lañ bëgg bëgg ak ku leen di tudd ci réew mi. waaw am na modérateur rox su ku ba wax loo bind sa tur après ñoom dinañ ko ko wax pour mu pour mu développer la. mooy sama numéro bi mooy user bi maa def foleen photo noir et blanc ba te wallaahi la lazim ak sama bakkanu doom waxuma woon sax ak moom barki Seydina Mohamed. waaw dinañ ko koy yeggee incha allah. billahi wallah moo tax bi ma gisee mu nekk ci live bi ma ne avec plaisir pour ma yéeg ci live bi ndax dama koy xeexal fu nekk fuñ ko ku ko liveal ma dugg ci sa live ku ma ko ci TikTok bi ginnaaw yàlla lu ci ëpp moom moo tax ndax man gisuma lu ñàkk fay fayda ci moom du nit ku bon xale la ndaw la te bëgg na boppam lu baax dong lay wax ci TikTok bi nit ñi nag kuy dem ak ñëpp bëgg la bañ a gis. merci incha allah wax ma la bu la kanam waaye moom. Mhm. moom nag nee ko nag na fukki ci laay fa. réseau bi de réseau bi de normal bi yow moom di wax. waaye yow Demba Thiam nag. yow du bët Thiam ci suba ba tey yaa ngi saw yaa ngi saw. <laughs> waaye yow ngeen ne profil bi waaye yow Natacha yow foo jëlee profil jàmbur bi kaay ñu waxtaan. barki Serigne Touba moo taxaw fii mu ne profil bi man kee la moo tax mu jël ko def ko fi bu ma fa wax dama damay fay. dama damay may gan yi ñu yéeg de siif de waaye photo be tax ma yéeg photo bi. ah moo ko wax de bu ma fa wax dama léegi def ko photo de profil tamit. yow it si kaay fii nga wax ma yow nga ne amatoo woon kon yow yow Natacha ngi ci say compte. salaamaaleykum. maaleykum salaam. salaam. na ngeen def ñu si jàmm. man sànq dama doon seetaan live rox mais après daf ko dëkk dëkk kii da ko mujjee yow coupé ndax dafa amoon ay wax yu sew et tout euh, man nag si dama doon dama doon nekk di suivre xel xel bu seel man moom laa doon suivre mais vraiment tey dama réccu li tax man moo ko doon suivre. parce que il paraît que mom mo do nek di taf di yaay jamburi wala ay doomu jambour et tout té loolu mom vraiment ken ken bugul sax ñu nek di la saga waxantu malaax ñuy nek di taf sa yaay wala ñuy jema taf say doom affaire yoy loolu non nit waru ko nangu euh, au fait limo don limo don limo don bëgg rek moy c'est parce que sànq amna ñu duggoon di ñu saga et tout affaire yoy non peut-être que ñom dañoo comprendre mais man de ma part personnelle man musuma fekkee live xel mu sell fu muy nekkee di saaga ñeneen ñun bi ñuy dugg ci live am c'est parce que Dieynaba mi gaañu loolu moo taxoon ñu dugg ci live am je pense que ñi nekkoon ay modératrice am bi ñu demee dema dema dema dem ba xam ne que kii nii la mel je pense que ci lañ ko bàyyi parce que xel bu sell ñëpp la bett ni leen nim mu ni mu ni mu ni mu bettee eh, comme genre ni mu yow bettee ay yow modératrice am ñun ñii man moom musuma nekk yow modératrice am musuma kaa gis amuma numéro vraiment wax dëgg fa neex yàlla sama sama akulaay taalaa laay wax mais moom bu doon live si ay affaire u dee si si ay affaire dee lay def lay wax moo tax ñëpp dugg si live am ñëpp dugg si live am jërëjëf loolu loolu noonu laa kii woon comme loolu laa amoon genre lu may leeral man nag damaa damaa yomnul wax ne du ma du ma kii du ma gis euh, ñu nekk di yow tuumal sama ay morom yoo xam ne vraiment man yow fekkee naa ko madame sois pas l'avocat du diable seetal nga sa der ñoom sois pas l'avocat du diable yow li la fa yóbbu woon nga mën a xam mais ñoom ñoo yóbbu woon mën a xam leen rek man damaa par yow personnel man mm-hmm. live wu Jeena Ba man moo yoo taxoon ma doon dem si live bi. oh my god princesse loo bëgg a wax yow. dëgg fa joxe nañ si ñu doon saaga. wuyu ma wuyu ma da wax ñi doon saaga ma ne la ñi doon saaga. pour mm-hmm. compte yooyu boo demee da nga leen fay fa seeni doom ñoom dañ leen fa taf. taf fa seeni doom ñi ñu taf seen liir yoo xamante ne. seen biiru yaay la yàlla jëlee seen bakkan ay fœtus ñu taf leen fax ci faux compte yooyu même faux mm-hmm. compte yi taf yaay rok sa doomam ñoom ñooñu ay mm-hmm. victime lañu ñoom donc dañ doon manifester seen colère mm-hmm. c'est vrai man kay man kay man comprendre naa leen comprendre naa leen bu baax wax dëgg fa neex yàlla c'est parce que fii kenn bëggul ñuy saaga sa yaay wala ñuy saaga sa pap mais moom bañ na ko ba ku duggoon si live am sax di wax ay waxu saaga dalay yow bloqué ah ñun tamit ñu yaakaar ne que moom peut-être que moom que dafa baax wala leneen ndekete moom ndekete moom moo gën a bon ndekete affaire yu bon yu nekk ci yow réseaux sociaux yëpp moom lax te wax dëgg fa neex yàlla lu baax kese lañ ci lañ ci yow jublu woon lu baax dong lañ merci beaucoup sant ñenn la Xadi siiba balaa mandikat yi di siif. waaw kay bay leen ñi pare rek ngeen. asalaamaaleykum na ngeen def. ñoo ngi Arturos, Princess Jula Maluka maa Fatim na ngeen def yéen a ah daay mën a ngi sànq ba rox na nuyu ko lu bëree bëree bëri te ne la ma koy wax daal mooy amati na ndam allah du moom rek mu am ndam de rox yëpp am ndam lii na war am sax am lu gën a jàppante ñi tapoter tapoter ñi commenter commenter lu lu lu positif waa ñi ñi ñi ñi nekk ci koy tamit di exprimer wu bu baax ndax ñun ñi tamit di leen di déglu ñu mën a am gëm-gëm bi encore pour mën leen déglu franchement tey dama kontaan parce que liñ déglu tey yëpp lii lii la bambara julaaw yow moom war ngaa xam li may wax lii la bambara di naan jàmpa mooy manam wóoraate mhm. boo leen toggee di di togg seen sombi di bëgg koo këpp ci benn nit day ñëw rek benn nit ci seeni biir mooy ñëw rekk këpp kii bi cin bi rek mu dal leen yéen yëpp doon na dëgg la sant yàlla bu baax a baax a baax a baax mais baal ma de yow dangaa xaw a ñiroo comme si ce rien fait kooku ah, doon wax non ñiroo voix <laughs> non nuruma nuruma moom de xatu non ah. bokkuñu sax bokkuñu sax fu ñu nekk parce que man ba ma ko laa nekkoon doog ñëw France donc bokkuñu sax fu ñu nekk. Ah, kooku mu ngi man moom damaa yàgg nekk ci suuf di tapoter na franchement. récemment la commencé di dugg. moom day tapate day di làkk soose may déggal saraxule may gémmal mandikat yi ñëw nañ Fatima siifal mandikat yi ñëw GP bu mag la Fatim waxal waaw da ngeen wàccee ko ko daa tëb réseau bee ko mandikat delloo ziar. ñu ngi ci jaamu. ci kër gi la kenn furuju la da ngaa da war a eh, tourné eh. après yéen may leen kii mu wax waaye yéen tamit. <laughs> xale bu jigéen bi borom tay baas bi. waaw. amatul fu mu toog kaawe mu ni xaaral ma ñëw bokkaal ci waa te toogoon di ko yàq.